dama ne sànq politique ñetti pàcc la nekk taalibe askan wi mooy pàcc bi njëkk ñaareeli pàcc bi mooy nga gànnaayoo ay jikko am yar am teggin respecté ku la mag dama ak teggin respecté ku la mag noo nekk xale amoo expérience boo ne woo lenn ñëw di patam patam di wax wax ju ñaaw

ak Snapchat ak WhatsApp yor sa clavier rek def la neex jàpp la yaa ci nit nag boo defee lu baax sa bopp boo defee sa fan sa kaw lay këpp nekk ci internet di Facebook mbaa ci YouTube di saaga nit ñi jàpp ne ngóor la jàpp ne jàmbaar la ma ne kuy wër di saaga kooku mérité wul ñu koy tàccu Sénégal jikkawuñu loolu yéen jigéen yi yenn a yar yéen a yaay yéen a nañ insisté ci éducation xale yi nañ insisté ci ci xale parce que boo amul éducation amoo yar amul lenn loo mën a réussir ci àdduna bi yara a nag du faiblesse de déedéet yar a mooy xam la war a def xam la war ta def di moytu xam ne doomu aadama boo jël rek. am na yàlla suñu borom lu def ci moom ci moom loo xam ne mérite na respect même sa adversaire loolu waral bés la boo xam ne tey maa ngi également nuyu ñi nga ñi nekkul AFP nuyu ñi nekk dans les partis d'opposition nekk ci la Benno Bokk Yaakaar ndax loolu mooy Sénégal c'est ça la démocratie c'est ça la diversité tàllal ñëpp loxo ne leen Sénégal dañ ko defar ku bëgg a defar indil sa contribution

Ça s'affronte àndatul avec la société dans laquelle il appartient Sénégal dañ doon naan xale yow xanaa rusuloo def dañ doon naan xale bu ne nee xanaa amuloo jom xanaa doo rus bu ñu la ko waxoon loo doon def danga de bàyyi parce que la société sénégalaise li ma gëm mooy que yooyu Sénégalais c'est un pays d'honneur c'est un pays de foi c'est un pays de dignité c'est un pays de patriotisme